Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba misras mi abijaayi xayri man abaat dafa bokk ci liggéeyu Touba ca kanam mu wuy aw turam mooy lépp luy jëmale dëkk bi ca kanam Touba ca kanam da ci dugal loxoom ndax ci loolu ci la juddoo ànd koog mbokki taalibe yi weer wu nekk kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaar téeméer ñu boole ko di ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi lu jëm ci leeraayu dëkk bi nag doon benn pàcc boo xam ne dafa am solo ci wàllu développement ak sécurité Touba kanam bi mu tàmbalee ba léegi loolu xelam mi ngi ci musu cee jóg di ci dox ay jéego daaw commencé nañ ko ak làmp buntu kër yi ba indi woon ci luy toll ak junni ren ñu yokk ko indi ci luy toll ak 3000 lu jëm nag ci lamp poto lamp yi dañoo gis ne moom jafe-jafe bu rëy la boo xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi. ci ak lëndamaay gu metti ñu nekkoon ren nañu fexe ba programme Touba ca kanam ñu dugal ci lu jëm ci làmp yi jëm ci poto lamp yi bokkut ak lamp bunt kër yi ci biir loolu nag ci la ñu commandé luy tolloog 1960 lamp doon ñaari junni yoo xam ne manqué nañ ñeent fukki làmp laataa ñu ciy dugg nag ni ñu baaxoo def mooy dem ci ñi mu ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a seqal ñëpp ndax xam ngeen ne éclairage public dafa bokk ci domaine yi ñuy wax domaine compétence transférée euh, ci communes yi ñoom ñoo ko war di toppatoo moo tax laataa ñu ci dox ab jéego dañoo dem ci commune bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom biñ ci jógee ñu dem di fàttali aussi ne boo bëggee xam 2000 wala 1960 lamp yi ñu indi nekk ñaari junni yu manqué ñeent fukk ban dayoo la am boo ko doon installe ci distance su 30 mètres ndax lamp yi li ci ëpp ay 30 mètres lay am guddaay bi mën naa dem 60 kilomètres pour nga xam nu mu toll. corniche Touba bi bu ngeen ko xoolee 16 kilomètres la 16 kilomètres yëpp boo ci defoon 500 lampes day doy corniche bi yëpp. te 500 lampes boo ko génne woon ci 1960 yi day mel ne boo ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj bi nga installé mu des yeneen ñetti xaaj yi pour wax leen quantité lamp bi nga xam ne moom la Touba ca kanam indi ni mu toll. yamuñ ci tamit ndax euh, yéene ji mooy tàmbali ko ren fas yéene mu wéy ndax gis nañ ne insécurité bi bari na trop ci dëkk bi te bokk na ci li ko mën a saafara mooy éclairage bu doy da cee bokk benn la élément essentiel la ci sécuriser dëkk bi yokk kaaraange gi fexe ba dëkk bi leer. ba nga xam ne def defkatu ñaawteef du mën a làqatu fenn di def li mu bëgg a def. jeunes yi ñuy intervenir mooy jeunes yoo xam ne discuter nañ ci maanaam waxtaan nañ ci ak commune bi déggoo nañ ci ñun suñu euh, intention maanaam suñu bëgg-bëgg mooy fépp foo xam ne mbedd mu mag la wala bépp bërëb ci Touba rek ñu fexe ba mu leer waaye kon xam ngeen ne am na ay lamp yu fi jot a nekk actuellement te lamp yooyu ni muy doxee ak ni lamp Touba ca kanam yi doxee du benn ndax lamp yi fi nekk nee naa leen léegi dafay dox ci euh, contacteur ak horloge lamp kanam yi soxlawul loolu na am courant rek moom jox ko courant rek li ci def moom moo koy lijjantil boppam léegi nag pour lampe yooyu nga mën leen a boole ci benn ligne dafay xaw a moo tax ñun ñu xalaatoon ne bu ñëwee ci benn ligne boo xam ne lañ fa fekk ci ay lampe yuy tàkk bariwut dañuy démonter yooyu yóbbu ko ci fu amagut ay lampe alignement boobu ñu def ko lampe yii ndax boo ko boo leen boolee ci benn eh, ligne da am jafe-jafe technique te loolu techniciens yi ñoo ko confirmé da ngay am jafe-jafe technique ci bii di doxee horloge bee di doxee capteur euh, liggéeyu lampe yi nag tay ji lay lay fas yéene tàmbali incha allah bu ci yàlla àndee coût globalu lampe yi tamit euh, niñ koy xamal faral di waxee Touba ca kanam coût global euh, montant yi muy déclaré toujours da koy dépassé ndax coût global u lamp yi la moom lañ ko jënd en espèce bu ma nee da koy dépassé nag mooy da ciy am yu ciy war a war ci ay main d'œuvre ki transport ak yeneen ak yeneen yooyu en général ñu bokk ci liggéey bi ñoo koy jaayante taxawu ko ba mu ci anam goo xam ne boo ko doon jëndi feneen day gën a cher suivi bi Touba ca kanam euh, ci ànd mairie ndax Touba ca kanam du def lu mu commune bi ci loo xam ne ci loxol commune bi la nekk ginnaaw bi mu ci euh, moom lépp lu muy réalisé day jël bëtam teg ci suivi bi ndax alali mbooloo la yor te mbooloo ku yor seen alal da leen koy sàmmal ba la taxoon ñu joxe ko ñu man cee teg seen bët. di wax ne maa ngi fi ñëw taxawal ànd feeg maire euh, taxawal fi maire ànd ak son directeur de cabinet monsieur Diakhaté mu ngi ni sama côté ñu ñëw ngir teewal fi monsieur le maire moom ci boppam nag mu bëggoon ñëw waaye yàlla dafa dogal mu am empêchement ba mënul ñëw moo tax mu yebal nu ne nañu teew ci cérémonie de lancement bi Touba ci kanam di am. Eh, di wax ne rek mi ngi mi ngi fedd feddali ngërëmam di li mbégteem ci lu mel nii ndax eh, moom ci boppam même bu waxul sax ci turu maire ci turu boppam rek jàpp ne lépp lu ñu war a def ci dëkk bi moom la war kon lu toll nii liggéey bu toll nii ak gi bi mu yor suñ ko dee def eh, da ciy bëgg sant ci bu baax di xamal ne mi ngi toujours mi ngi seen ginnaaw euh, di montrer toujours disponibilité am ak àndandoogum ànd ak waa Touba ca kanam ngir lii ñu sumb jëm ca kanam duma du ma dellusiwaat ci détail ndax ki jël kàddu gi sànq wax na ko éclairage dafa bokk ci éclairage public dafa bokk ci luy jëmal dëkk d'abord ensuite lu boole lu lu koy jox sécurité ndax ñug-ñugal ak lëndamaay loolu bokk na ci li nga xam ne si li dana tax insécurité développé ci am réew ko ñaawteef yi ñaaw kat def kati ñaawteef yi également dana ci mën a profité pour pour def seen liggéey loola kon bu fekkee nañu taxaw ngir sàmm dëkk bi ngir mu leer loola tawfeex la donc amuñu ci benn frontière amuñu ci benn différent amuñu ci benn wax boo xam si dana mën a am suñu diggante ak ñoom collaboration bi ndax avant que commune di ñëw avant que Touba Kanam di créé wu ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey nekk bokk ndey bokk nekk baay bokk dëkk bi lii war li leen war lii leen war moo li leen war ci dëkk moo nu war ndax ñun ñëpp ay euh, dañuy contribuer également ci Touba kanam parce que kenn ku nekk de façon individuelle chaque année la nga xam si yaa ngi koy joxe Touba kanam yaa ngi koy joxe indépendamment de sa appartenance ci commune wala nga appartenance ci benn association. di rafetlu seen liggéey ndaxte c'est des partenaires de la commune de tubaa Mosquée. te partenariat bi nekk benn partenariat bu dëggu bu ànd ak pas-pas bu ànd ak engagement bu ànd ak ak ak ak ak ak euh, ni ñu koy waxee ci euh, gëm gëm yéene ndaxte li ñu gis tey ji dañ fi ñëw pour dalal seen lamp yooyu pour les réceptionner mun toll si ay mille neuf cent soixante lampadaires ak yeneen lamp yi nga xamee ni bi depuis daaw ba ren ñu ngi koy andi commandé di ko dugal si kër yi ñu war a donc euh, dala lamp yooyu tey réceptionné leen liggéey gi nag day tàmbali waxtaan nañ seeg mairie ba mu mokk rumbax lu des rek mooy dem sur le terrain monter lamp yi président wu Touba kanam wax na leen léegi naka la ñuy procéder n'est-ce pas à l'installation de ces lampadaires parce que am na yeneen lamp ñuy fekk fii yu ànd ak ay euh, horloge xam nga jamono day dox ñoom nag seen liggéey li tax mu neex moo di dañu ànd ak jamono ndaxte lamp yi ñu fi andi lamp yi nga xamante ni bi la bu leeree day fay maanaam bu demee ba naaj bi jant bi commencé jóg rek moom capteur crépusculaire boobu mu nga xam ne moom lañ ko doté dafay signaler lampe bi rek lampe bi daal di ne kamaj fay su demee ba mu lëndam ba mu toll fi nga xam ne war na tàkk tamit rek day daal di tàkk loolu bokk na si li nga xam ne ni dafay sakkanal énergie te xam ngeen jamono bi yëpp ñu ngi wax si affaire courant cherté bi ak yooyu te euh, làmp mbedd commune moo koy gérer moom tey jii bu ñëwee nekk partenaire commune nekk si wetu commune ci ndigalu sëñ bi fas yéen àndante commune bay waaram si commune bi parce que dëkk si dëkk bi tekki fi dara ko gën ñoom nag dañoo taxaw lu si waru lamp bi rek laa leen di seedeel ndaxte même si wàllu environnement bi keroog bu ñuy installé bu ñuy jëmbat garab yooyu maa ngi teewoon foofu si seen opération boobu de reboisement boo ñëwee tey jii gis ñaari voies yi gis nu mu rafetee nu mu taaroo ak cocotier yooyu ñu si ñu si def ñoom la ba pare dañ ko sécuriser en même temps tey jii ñuy dox si wàllu électricité éclairage public. comme nu ko président waxee éclairage là où passe l'éclairage public la l'insécurité trépasse maanaam éclairage fu mu taxaw rek insécurité day daal di faatu day doo di daw ndaxte Samba Boy mi ngi opérer si bërëb yi nga xamante ni bi c'est mal éclairé. moo tax donc ñoom non seulement dañuy leeral dëkk bi waaye tamit bokk nañu tamit suñuy xeex si wàllu insécurité bi aussi loolu nag ñu ngi leen si gërëm di leen wax ni Touba sa kanam donc sa kanam jërë ngeen